merci à l'un de nos sponsors euh, euh, kon wala wala boog suñu sponsor yi ñu àndal euh, ci matinal bi alors ci kanam tuuti laataa ñuy dalal suñu gan bi dañuy sóobu ci jàngat bi ak El Hadj Daouda Mine El Hadj xanaa ñu nuyuwaat rek suñu téléspectateurs yi ñu dab ci ñaareelu pàcc bi. Mm-hmm. waaw maa ngi lay nuyuwaat soxna Naata di nuyuwaat sama naataango yi ma bokkal plateau bi di nuyuwaat téléspectateurs yu TFM. di am yaakaar que ni lépp lañ fi war na jëriñ askan bi incha allah euh, te El Hadj Daouda da nga bëgg a waxtaan ci euh, mission d'audit yi maanaam ay càmbar yi nga xam ne euh, kilifa yu bees yi daanaka wax nañ ko wala yoo xam ne sax amoon na bien avant ci ay këru liggéeyukaay ni ñu demee wala ni ñu yoree alalu réew mi ak tamit yenn yi ñu nga xam ne en principe dañuy jàpp ni loolu bu amee bu amee ñu ci jàpp yoon dafa war a def liggéeyam waaye mu mel ni yëf yi dafa yéex wala du demee noonu saa su nekk lan moo ci responsabilité état waaw jërëjëf euh, soxna Naata. Hmm. Euh, li ñuy wax euh, audit dafa nekk lu nga xamante ne lu normal la ci ci ci dëkk. Hmm. état bu nekk dafa am lu ñuy woo ay corps de contrôle. corps de contrôle yu nga xamante ne dañ leen di voté budget ñu am personnel bu nga xam personnel bu étoffé di def liggéey liggéey bu mucc ay pour la plupart. Hmm. parce que boo xoolee corps de contrôle rek ña nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk di fa liggéey il faut partie des meilleurs cadres. boo jëlee rek euh, l' inspection générale d' état mhm. à la IGE ngay gis ni c' est des cadres supérieurs yu nga xamante ne concours bu select pour ku ñu dugg fa donc euh, liggéey bi nga xamante ne lañ koy liggéey lu ci bëri dañuy yàpp dañuy jàpp ni dañu yaakaar que ni c' est juste pour que ñuy ñu nga xamante ne dañu luubal alalu réew mi et consort non non loolu du seen du principalement mhm. Mhm. seen rôle principalement mooy euh, def ba nga xamante ne kilifa gi dinañ ko jox les bonnes informations pour que mu mën a gouverner mieux le pays loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy seen rôle principalement. Mm. mooy fexe ba nga xamante ne dañuy améliorer ni ñuy gere les ressources publiques te loolu nag. ay recommandations yu nga xamante ne dañ koy jox kilifa yi la du ñoom ñoom ñooy jafe ñoom bu ñëwee def seen liggéey ba pare dañuy jël li nga xamante moom la ñu gis ci liggéey bi ñu daal di koy jébbal ñi nga xamante ñoom ñooy kilifa yi. donc boo xoolee corps de yëpp seen rôle principalement mooy vérifier li nga xamante ne nan la ñu utiliser les ressources du pays déjà benn ci seen rôle la. Mm. beneen bi également contrôler la gestion du patrimoine tey boo boo jëlee état dafa am patrimoine dafa am ay kër dafa am nangam nu ñu koy joxe ak ña nga xamante ne ñoom ñoo koy gérer également ñoom il faut que ñu xam alal ji nga xamante ne patrimoine bi nga xamante ne état moom moo ko am muy oto oto yi nga xamante état bi moo ko mu am kër gi nga xam ne état moo ko moom société yi nga xamante état moo ko moom nan lañ koy gérer ak kan mooy ki nga xamante ne moom moom moo ko yor doo loolu il faut que ñu xool ko kon apprécier la la qualité de fonctionnement des pouvoirs publics des deniers publics astafurlah pouvoir public yi nan la ñuy nan la nan la ñuy nan la ñuy fonctionner woo nan la ñuy liggéey liggéey également mm. ñu ñoom dañ koy apprécier daal di jë jël ay kayit daal di koy jébbal mm. ki nga xamante ne moom moom mooy euh, euh, kilifa gi nan la ñuy exécuter également les politiques publiques parce que dafa am ay politiques publiques yi nga xamante ne état ñoom ñoo koy jël les kilifa yi ñoom ñoo koy jël daal di koy càmbar teg ko mu nekk ay programme ak ay projet mm. mais nañ koy exécuter dañ koy ñëw tamit ñu càmbar ko daal di wax kilifa gi ah wax dëgg yàlla lii kat jàpp nañu normal wala lii kat jàpp na sooxe sooxe na donc bu ñu paree mais également naturellement aspect boobu moom la ñu di jël en compte moom mooy lutter contre le détournement de deniers publics la fraude et la corruption loolu nekk na seen aspect mais loolu ñu ci bëri loolu la ñuy jël ñu mettre ko en avant. Hmm. mais loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy. li euh, mujjee hmm. mooy bu ñu demee ba nga xamante ne dem nañ ba saytu gis nañ ni kat kii kat dañ koo jox xaalisu état bi. mu jël ko defee ko naka sa dul noonu def na détournement deniers publics wala def na faux usage de faux wala def na escroquerie sur les deniers publics wala def na corruption à part de ce moment là ñu daal di koy épingler ñu ne kii kat wax dëgg yàlla il faut que ñu jébbal ko yoon pour que yoon def li nga xamante ne moom moo war donc li ngay gis ni mooy chaque fois rapport yi nga xamante dañ koy def comme mu rapport IGE comme nekk rapport OFNAC comme nekk rapport Cour des comptes mm. comme nekk rapport sa ARMP mm. ñoom ñëpp bu ñuy def seen recommandation yooyu nag dafay am ay recommandation nga xamante ne soxlawul nga ko yóbbu ci justice yow administration boo ko jotee rek da war a joyanti li nga xamante ne jàpp nañ ni sooxe na dafa am loo xamante ne ca na ngay nomee lañ lay wax ne ni ngay nomee du noonu hmm. compte yi nga xamante ne moom ngay def xaalis ba lañ lay wax ne compte yooyu waroo ko defe noonu na ngay génnee xaalis bi par exemple di ko exécuter ñu ne la du nii ni lañ koy defee parce que règle de finance publique lii la lii la wax kii kat def na naka suru noonu également nañ koo topp donc dafay am recommandation d'ordre administratif mais am des recommandations nga xamante dañuy demander hmm. à que l'État du Sénégal ci boppam daal di ubbi des informations judiciaires jël kayit jébbal ko procureur pour que procureur jox ko benn juge pour que ñu ubbi ça veut pas dire que ñooñu nga xamante ne joxe nañ leen euh, na laa koy wax sa baaraamu tuuma. Hmm. lañ leen di jiin ñoom ñoo ko def mais dañ ne ok gis nañ lu nga xamante ne moom justifié wu ko. Hmm. léegi xam nga moom mu daal di justifier li nga xamante moom lañ gis su demee ba ci biir nañu jàpp ne la nga xamante ne euh, gisoon nañ ko moom moo luubal alal ba alal alalu askan bi daal di koy dugal ci fu nga xamante waru ko bu boobaa daan yi nga xamante ne le code pénal prévoir na ko ñu teg ko ci kaw mais foofu nag moom mooy foofu la ñuy woowee responsabilité état mm. parce que encore une fois corps de contrôle yooyu bu ñu paree la ñuy jébbal mm. ñu ngi koy jébbal kilifa yi tey ji boo xoolee da ngay dégg ñoon jox na rapport parce que déjà l'IGE kenn mënu koo activer lu dul président de la république parce que présidence la nekk keneen mënu ko activer donc ñooñu bu ñu demee liggéey ba pare jël kayit yi daal koy jébbal jox ko jox ko état le chef de l' état ñu ngi xaar ci chef de l' état que recommandation nga xamante def na ko ñu mun koo ñu mun koo jëfe euh, euh, euh, nu tey la cour des comptes la cour des comptes ñu ci bëri da xamuñu xamuñu xamuñu soloom lu bëri te la cour des comptes c' est le seul cour de con bu nga xamante ne c' est prévu par la constitution. Hmm, la cour des comptes. la cour des comptes boo jëlee constitution benn cour de contrôle nga fay fekk c'est la cour des comptes li ci des yëpp ay loi ñoo leen créé mais la cour des comptes c'est prévu par la constitution ba pare mu amaat beneen loi bu nga xamante ne moom mooy prévoir prévoir la cour des comptes donc liggéey bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def ak recommandation yi nga xamante ne ñu ngi koy def dafa jaadu que ñi nga xamante ñoom ñoo nekk état bi ñu nekk kilifa yi ñu mun koo jëfe pour que ñu joyante un certain nombre de choses. lu ci bëri gis nañ fi fond force Covid bi ak itam li nga xam ne moom lañ ci wax lépp et jusqu'à présent peut-être ñi nga xam ne tuddoon nañu leen ci mbir mi France daal di xëddeem. Mhm. lan moo war a mën a nekk euh, pexe yi ñu war a teg. daar ah, mais boo xoolee euh, Cour des comptes bi mu defee bi mu defee bi mu génnee rapport am fond force Covid. mais comme ni ma la ko waxee am na ay recommandations nga xamante ne pour ñu joyante sur le plan des procédures xam nga sur le plan xaalis bi nan la ñu koy génne ak ay consort amoon na ay recommandation mais amoon na 14 recommandations yu nga xamante dañ ne woon yooyu nañ ko jébbal procureur pour que ñu ubbi depuis kañ la loolu jusqu'à présent bon gisoon nañ ni amoon na ay enquêtes préliminaires yu nga xamante ne division des investigations criminelles mu ngi ko doon def mhm. mais après fan la mujjee ba tey ji voilà ñu ci bëri ñu ñu ci bëri xamuñu voilà parallèlement à cela à il euh, y avait des députés de Benno Bokk de de Yewwi Askan bi astafurlaa y avait vingt neuf députés. Mhm. de Yewwi Askan bi nga xamante ne jëbaloon nañ kayit assemblée nationale pour demander à que yenn ministre yu nga xamante ne. te euh, ñoom ñoo doon gérer euh, nan laa koy wax sax. fonds fonds yooyu. Mhm. ñu mun leen a waxoo devant la haute cour de justice pour que ñu mën a répondre par rapport à tout cela parce que ministre yi dañu am lu ñuy woowee privilège de juridiction. c'est pas les juridictions ordinaires lañ leen di woowee kenn mu leen yóbbu par exemple là au niveau du tribunal correctionnel et console c'est la haute cour de justice moom moo habilité à juger ñi nga xamante ne dañ nekkoon ay ministres ñoom ñoo habilité également à juger ku nga xamante moo nekkoon premier ministre moo habilité également ki nga xamante ne juger le président de la république donc nag ñoom demandé woon nañ sur la base du rapport bu cour des nga xamante ne dañ leen cité pour que ñu leen installer xam nga euh, ñu mettre leen en accusation saytu la nga xamante ne moom lañ doon gérer et puis xool ndax effectivement euh, xaalis boobu ñu ne woon luubal nañ ko ñoom laale nañ ci wala wuñ ci mais loolu également amul lenn lu nga xamante ne mujj mujje nañ ci ña nga xamante ay daaj lañ ñu waxoon nañ leen topp ba tey ji kenn xamul lan la mujje ministre ya nga xamante également député waxoon nañ pour que ñu mettre leen en accusation également devant la haute cour de présent amul lenn lu nga xamante ne na ci. mais li ñu constaté mooy ces corps de contrôle dañuy def ay rapport chaque année di ko génne même si ces dernières années rapport yi génn ba président Diomaye mii moo leen tegoon pression muy cour des comptes génn ci rapport parce que rapport bu Covid na rapport spécial boo xamante ni euh, partenaires techniques financiers ñoo ko sàkk woon ngir après ñu def wane ñi ngi doon liggéey mais rendre woon public li nga xamante ni moom mooy yooyu rapport yoon daf leen ko exiger wala saa yu la neex nga koy génne. waaw dafa am corps de con corps de contrôle yu nga xamante ne dañoo am obligation def ko. rapport annuel la ñu war a def. Mm. même loi bi nga xamante ne moom moo leen créé daf leen jox obligation pour ñu def ko boo jëlee par exemple euh, l'ARMP da ko war a def soo jëlee Cour des comptes da ko war a def. gëj na ko def at mu jot dañu war a def dañu war a def rapport. jébbal ko le président mais bu ñu ko jébbalee le président pare dañ ko war a publier ci seen site loolu la lool loolu la texte si wax benn corps de contrôle moo nekk bu nga xamante ne amul obligation publier ses rapports muy muy l' inspection générale d' état et que la loi dafa wax ni pour que sax la nga xamante ñoom saytu nañ ko ba gis ko pour que ñu def ko sur la place publique il faut que le président jël benn décret déclassifier ko boo xoolee ci taarix rapport bi nga xamante ne déclassifié woon nañ ko fa mooy rapport ba nga xam ne defoon nañ ko sur les chantiers de Thiès depuis xam te chantier de Thiès 2004 woon 2004 ba 2024 ça fait 20 ans depuis boobu gisuma IGE benn rapport bu nga nañ ko te dama laa wax ne ay kàngam ñoom ñoo fa nekk di def liggéey bu nga xam dañ koy liggéey pour askan bi bu ñu demee ba def ay nga xam ne dañ koy def pour askan bi encore une fois dafa rafet parce la nga xamante ne dañ ko génne mu nekk ay recommandation wala mu nekk ñu nga xam ne dañ leen épinglé que population sénégalaise mën a xam exactement nan la fa demee nan lañ gérer seen denier public kan moo fa luubal ak lan moo lañ lan mooy li nga xam ne dañ koo teg ci kaw. finalement euh, El Hadj Daouda lan mooy alors euh, utilité bi def ay rapport càmbar xool ñu def ay recommandations te duñ ko topp même bu que ça soit ci wàllum yoon wala euh, dans le cadre administratif et tout et puis ban njeexital tamit la mën a amee ci gouvernance bi gestion bi nga xam ne ku ci ñëw da ngay bàkk sa bopp ñu da nga <laughs> gestion bi su fekkee nañ ne dañu am ay corps de ñu jël fa ñu nga xamante ne font partie des meilleurs cadres de l' administration sénégalaise jox leen ay budget conséquent jox leen ay moyens ñuy def parce que ñi ñoom bu ñuy càmbar bu ñuy def ay kii mais c' est des missions yu nga xamante ne ay frais de mission ay nangam ak nangam yoo xamante ne leen ko jox xaalis bu bëri bu nga xamante ne dañ koy jël ñu daal di koy dégage pour ñu def su fekkee def nañu rapport yooyu pare def ay recommandation te recommandation yooyu ko mais ça va ça tout simplement qu'on n'a plus besoin de ces corps de contrôle là donc corps de yooyu ñu ngi fi jëmm ji nga xamante ne dañ koo am il faut que ñu respecté et la nga xamante ne dañ koy def ci recommandation également il va falloir que ñu jëfe ko donc loolu nag foofu laay waxee ni loolu mooy responsabilité état responsabilité ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite réew mi que lépp lu nga xamante ne Euh, santé nañ ko wala ñu nga xamante ne ils sont habilités à le faire def nañ ko ba def ay recommandations recommandation dañ ko jëfee parce que ñoom encore une fois euh, dañu nekk ñu nga xam ñoom ñoo njaboote ñëpp mais bu ñu njabootee ñëpp ba pare dafa am ñu nga xamante ne ils sont habilités à faire un certain nombre de choses justice seen xam-xam juge yi dañ leen a formé seen xam-xam màcc ci rendre la justice ñi nga xamante ñoo nekk ci corps de contrôle dañ leen a bàkkee ñu leen a tàggat ba nga xamante ñoom mën nañ dem saytu parce que xam nañ les règles finance publique xam nañ les règles de l' administration xam nañ na nga xamante noonu la war a doxe xam nañ texte yi nga xamante ne moom moo régir le fonctionnement du pays nan la war a doxe bu ñu demee ba gis ne lii kat dafa nekk lu nga xamante ne dafa sooxee waroon nii la waroon demee te demee te niñ ko doxalee demeewul noonu yow ki nga xam ne yaay kilifa da ngaa war a joyanti loolu mais la ñuy xaar naturellement mooy kilifa ga également mu joyante pour que loolu nga xamante ne amoon na te normalul dootul amati et que bu boobaa ñu jóge ci benn pas bu nga xamante ne peut-être daal demaat ci beneen pas supérieur qualitativement et quantitativement ñu mën a ni nga xamante ne la ñu gérer suñuy deniers publics mais chaque année ñu ne ok am nañ un budget de milliards wala milliards. Mhm. génn ko par exemple jox ko ma Samba jox ko ma Demba. année bi ñu topp ñu génn waat 7000 milliards te ñi nga xamante ñoom ñoo tax ñu génn xaalis boobu muy askan bi gisuñu seen bopp je pense que euh, warul e tout cas. léegi réforme yi ci loi bu nga xamante ne dañ ko fi def moom moo fi nekkoon. réforme yi nga xamante dañ ko fi defaat mooy que ni dañu gën a dooleel ki nga xamante moom mooy le président de de de de l'OFNAC le champ de compétence bu dañ ko gën a élargir. Mm. mais ki nga xamante moom mooy le président de l'OFNAC dañ ko jox yeneen possibilité possibilité bi nga xam possibilité bi nga xamante ne mën na dem ba moom sax jël des mesures de garde à lu nga xamante ne amu fi woon. Mm. xam nga OFNAC bu ma a pare ay rapport am. day jël rapport daal di koy jox le procureur de la république le procureur de la république moom moo doon xool ndax dina poursuivre wala du poursuivre gisoon nañu ko Seynabou Ndiaye Diakhaté ba mu jëloon ay rapport la procureur de la république estimé wul woon devoir daal di euh, nalaakee waa sax daal di def ay poursuite mais tey jii ci euh, mouture bu bees bi nga xamante moom la OFNAC am moo di yow mi nga xamante yaay la président de l'OFNAC soxlaatuloo bu fekkee ne Daouda Mine mais moom moo luubal def na corruption wala soxlaatuloo nga dem ci procureur na ko jàppal daaw domaine yow sa bopp yow yaa koy convoqué mu ñëw nga placé ko en garde à vue jël dossier bi daal di koy yóbbu au niveau parquet financier hmm. donc loolu am nga possibilité boobu la nga moom it am na recommandation parce que dégg nañ ministre de la justice wax ko ci APS mooy bi ñu waajal assises yi rapport bi nga xamante ne cour des def na ko def ay recommandation tudd ay tour ay da dage liggéey bu am solo ñi jaar ci fi la nga xamante mooy chambre discipline financière atte na leen fi la des moom moo ko doon def sa sëkk en tout cas le garde des Sceaux a ne rapport bi cour des comptes def soxla wutoon par exemple di defaat beneen enquête. waaw moom laay wax bu doon jël la woon. cest à yow bu fekkee ne da jël ay corps de ñu xam seen xam-xam dafa màcc ci yenn enquête ñu def enquête ba pare daal di ñëw ne gis nañ lii gis nañ lii gis nañ te daal di wax li nga xamante moom lañu gis ci ay ay ay lu nga xamante ne jàpp nañ ne jubul interpeller la personne bi nga xamante ne moom lañ jàpp ne euh, luubal na daal di koy jox benn délai pour que mu indi les pièces justificatives indiwu ko après ñu ne ah lii mooy montant bi nga xamante ne jàpp nañ ne amul les justificatifs et par conséquent dañoo demande à ce que ñu poursuivre ko donc à part de ce moment là man pour man bu fekkee ni Euh, IGE dafa def wala Cour de comptes def nga jëlaat dossier bi daal di koy jëlaat section de recherche wala division des investigations criminelles mais da ngay jël lu nga xamante ne ki ko ki ko gën a xereñ ku ko gën a xereñ ci liggéey boobu def na ko boo pare nga wëlbatiku daal di koy daal di daal di koy daal di koy daal di koy joxaat donc doo mun comprendre hmm. donc je pense que li nga xamante ne moom la ñu waroon def muy suivre recommandation mooy lan hmm. mooy lan mooy demandé nañ la à ce que nga une information judiciaire mais jëlal dossier bi nga jox ko à un juge d'instruction le juge d'instruction de par la loi dafa am des pouvoirs étendus des pouvoirs yu nga xamante ne moom si boppam non seulement mën na jëlaat dossier bi def délégation judiciaire yóbbu ko dikk wala mu yóbbu ko section de recherche am na possibilité également ut ay experts le juge d'instruction am na possibilité boobu ut ñoo ne ko ah wax dëgg yàlla dañu maa jox rapport sànga mais dama bëgg ngeen expertise am wala ngeen defal ma contre expertise am na possibilité également lépp lu nga xamante en tout cas moyen d'investigation yu mu am c'est des moyens très étendus donc à partir du moment où da nga bëgg affaire bi leer soo jëlee dossier bi nga jokk un juge d'instruction wax dëgg fa yàlla xam nga c'est la voie pour que affaire bi leer nañ ka nga xamante dañ koo topp boo indee ay éléments de preuve am le juge d'instruction du ko yóbbu sax devant le tribunal da koy joxal non-lieu ñoo ne ko ah lii lañ la doon toppee mais gis nañ ni lañ la doon toppee amuñu benn charge suffisante et par conséquent am nga non-lieu su fekkee ne gis nañ ne ah dëgg fa yàlla am na ay charges yu nga xamante ne jàpp nañ ne c'est suffisant bu boobaa moom du juger day jël dossier bi renvoyé ko devant la juridiction de jugement à de ce moment yow nga dem fa ak say avocat nga layoo bu ñu nee lii nag yaa ko def à partir de ñu ne la tu es coupable daan ba nga xamante ne le texte prévoir na ko le code pénal prévoir ñu doog ko teg sa kaw mais dama jàpp ne yoon bi mooy loolu bu ñu defee ay recommandations les corps de contrôle bu ñu defee ay recommandation mmh. le procureur li ko war mooy lan mu mmh. ubbi ci ay enquêtes ña nga xamante ne dañ leen ñu ñëw ak seen élément de preuve nga xamante ne égal élément de preuve yooyu ne yemb na dinañ leen bàyyi su fekkee ne jàpp nañ ne def nañ naka su dul noonu également ñu teg leen yoon mais jël dossier bi daal di koy teg ci tiroir loolu jàpp naa ne normal loolu soo sukkandikoo si sa expérience ci euh, milieu justice bi euh, jàppoon ni impunité dafa xaw am ci mbir yi parce que fii dañ fiy tudd ci mbirum rapport lu bël yëpp te ak ñi nga xamee ne lañ jàpp lañ lañ mës xam ni jàpp nañ leen tëj nañ leen est-ce que néewul Euh, par rapport ak euh, situation globale bi. waaw mais boo xoolee bu fekkee da ngay wax expérience euh, ñun on a on a on a l'habitude de voir que les corps les les, les rapports des corps de contrôle. Mhm. dañ leen mës a utiliser à des fins politiques. loolu mooy lu nga xamante mu nekkoon le constat le constat global da ngay ñëw par exemple ñu citer quatorze personnes. bu ñu cité quatorze personnes ñu jukk ci ñaar wala ñett yu nga xamante ne dañ leen di topp parce que ñaar wala ñett yooyu dañ nekk ñoo xam ñun ña bokkuñu langue politique. Mhm. wala voilà am nañ lu nga xamante mën nañ la affaiblir sa base politique ay consort gis nañ ko fii des cas des cas bu ñu ñëwoon di personnage on pouvait citer des cas et des cas loolu mooy habitude li nga xamante ne moom moom la ñu am loolu moo tax nag ñu ni na mu daan doxee il faut que mu soppi mu soppee ko parce que les rapports les corps les corps de contrôle am na ñoo xam ne dañu am programme annuel. am ñu nga xamante ne dañ leen di activer pour que ñu def dañuy jëw par exemple ñu ne ok cette dañuy dem par exemple mairie sangam wala dañuy dem ministère sangam wala ñu dem mu am un programme bu nga xam ne dañu ko un programme annuel rapport de corps de contrôle dañuy liggéeyee noonu wala ñu toog le président de la république daal di ñëw ne ok euh, l'IGE sama responsabilité la nekk dama koy yóbbu par exemple caisse de sécurité sociale mu daal di koy saytu wala dama koy yóbbu euh, mairie Rufisque mu saytu ko wala dama koy yóbbu mairie Thiès et con et mu saytu ko bu demee mu indi rapport mais je dis encore une fois dès l'instant où yow corps de contrôle boobu daal di activer wu jëlee deniers publique daal di dem def liggéeyam ba pare daal di génne rapport yow amatoo looy xool ndax kii dafa nekk ku nga xamante ne sama hmm, man la àndal wala àndul ak man la ca war da nga ko war def recommandation d'ordre administratif lii dañ ko war a joyante nañ ko naa ko joxe li nga xamante ne ça dépend de moi directement parce que sur le plan administratif ça de moi mën naa dem conseil des mille bu fekkee ne ay loi yu nga xam ne dañ ko war a voté waat pour que pour que améliorer ñu voté loi yi su fekkee ne ay règlement yu ñu war a jël décret wala mu nekk arrêté ñu daal koy jël mais la nga xamante ne c'est du domaine de de de la loi nga xamante y a une séparation de pouvoir je prends ces rapports là ma daal le procureur demander ko demander à que ñu ubbi ay enquête et ñu def li ñu li ñu war def man pour man noonu la war a demee mais pour répondre à question li fi jot li fi daan am moo di dañ doon utiliser les rapport des corps de contrôle à des fins politiques et jàpp naa ne loolu du loolu la war a demee et que mm. il est temps pour que ñu ñu joyanti loolu parce que jub jubal jubbanti jubbanti la ñu wax. <laughs> <laughs> voilà donc <laughs> merci beaucoup merci El Hadj Daouda ci euh, jàngat bi am na solo dañuy jàll ci ponk bu mujj ci info matin daanaka muy suñu gan ñu dalal ko.